fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom loolu moom mooy bis bi ëmb tey ak ëllëg mooy bis bi nga xam ni bisu alhamdulilah rek la àttan na lépp bis la boo xam ne min shifaay màggal gi moom waaj ko yëg gi rek la boo gisee yëg sëriñ bi rek yëg googu nga yëg. mooy waral lépp sëriñ bi day egsi ci yow kon màggalu Touba li ci ëpp solo mooy waxtu bu fa jógee jàppal ni bis bi mooy doxal sa tey ba nga dellusiwaat ci màggal bi ndax bërëb boobu ñu koy defee këf fa tëdd mooy abdil atta nee na fu dara am ci kaw suuf moo ko fa def te màggal gi donte bu doon sax doo jullit teew ca màggal gi ngir sëriñ bi la fay ñi gëm lañ lay fay yow bisu lépp la buñ ko doon tënkatee romb na bisub jullit sax bis la boo xam ne nañ ci amul bëgg am ci yëpp sëriñ tanewu ci taalibe ab taalibe tanewu ci sëriñ sëriñ tanewu ci ab taalibe ab taalibe tanewu ci sëriñ màggal gi màggalu sëriñ bu ci man summeeku sol say dàll di séddale bool yi di joxe ca ñam wa secret màggal gi lépp da ci xaj sa doole sa jot sa poos sa lépp ndax loo ci fi dañu koy ful kon màggal gi moom ñu ñëpp ko gisandoo rek nañ ci yàlla yu ak jàmm te luñ ca defoon David buñ ci eggee borom bi ful ko ndax sëriñ bi egg na foo xam ne buñ koy waxtaanee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg léegi sax dootuñu dimbali nit ñi ndax fañ ko gëmee ak fa mu ne koo xoote amul dimbal yàlla da ko gën a xam waaye kon nañ am yéene ci barke boobu nga xam ne suñu borom defal na ko nga xam ne moo romb sax ab pétrole ndax nit ñaa ngi naan petrol feeñ ña fi pétrole. mën naa feeñ fu jàmm nekkut mais li feeñ ci ñun nekk ñun dëkk ci ñun moo gën a for mooy ki nga xam ni lu amati ci barke ci àdduna ci loxoom la tëdd kere ba wax sëñ muur Moustapha bu ngeen ma fexee ba denc ma foofu lu ngeen tàmbali ko dina egg ñu xam sëriñ ci wàllu nopp la sëriñ bi dañ koy bëgg gëm ko wóolu ko yaakaar ko di dund ak moom fa nga war a dund ak moom di yëg la nga war a yëg ci moom di ne fa nga ne war a nga ci moom rek kon màggal gi moom. Euh, mille si fay desee weer rek wala ay weer rek mboolem kuy borom cër yëg loolu bis la boo xam ne mën na rax sa adduna ak alaxira ah, sëñ bi kan ba muy génn rek la ne alhamdulilah sant naa yàlla ba ma yàlla nan ne ma liggéeyal ko foofu rek la combat bi jeexewoon kon Mourtada wax ci lu gudd. màggal gi daal mooy màggal gi rek <laughs> yàlla si borom yóbbu jàmm ndax nee nañu màggal gi lekk ya murit yi di lekk ca màggal gi buñ ca lekkee sax ba dem ca wanag demu demukaayu wanag ya nga xam ne lekk nga ca màggal ga la jóge sax day faj soxla waa loolu nag xéewal mënu ko weesu kon nañ ko waajal moo gunti ñun lépp moo gunti ñun xeeti jàmm yàlla yépp ndax lépp ñu ngi ko nangoo ci bis boobu kon mën ak sama moroom ñëpp a ci yam kenn tanewul ci Serigne tubaa borom Touba ci tubaa Serigne Touba ci tubaa Serigne Touba dugg ci borom tubaa borom Touba jox suuf Serigne tubaa muy borom Touba. yal na ci yàlla yóbbu jàmm kon xam nañ ne rabbi xayral mu rabbi xayral mu xalbi bi leen dahi lahu shukuri bila kufuri wa nashiru min fidayi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala